waaw su vrai que ñoo ngi jóge ci euh, jafe-jafe yu metti ci biir njàng beeg njàngale mu nekk jafe-jafe yoo xam ni xam nga dafa tegu ci kaw euh, Covid bi nga xam ni xale yi ñàkkoon nañ waxtu yu bëri ñuy fàttali ni xale yi def ren examen ñoo nekkoon ci classe intermédiaire yi mais jafe-jafe yooyu aussi dafa tegu aussi ci euh, li jàngalekat yi waxoon ni dañoo bëggoon ñu gën a defaraat seen tooguwaay ba liñ leen di dàmpee ak liñ leen di fay mën a tax ñu mën a attan. Euh, lii àdduna di laaj ci payoor euh, je crois que jàppoon nañu it ni ni ñuy fayee euh, ñi liggéeyal nguur gi yëpp dafa teguwul ci yamale donc loolu boo waraloon wax dëgg yàlla ak yu wees yëpp mu amoon ay coow lu bari ci nan la ñu war a payee ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñi liggéeyal nguur gi. gouvernement bi tontu la ci tontu boo xam ne it ñun rafetlu nañ ko parce que am na ci ay jéego yu am solo yoo xam ni kenn nattablu ko yu ci am ci yokkute yoo xam ni xëy na. Euh, bu ñu ko jëmbalee ba mu egg dina mën a tax ba euh, bépp koo xam ni euh, senegale nga surtout ñi nga xam ni ñoo mën si ñun danañ jéem a ñu njëkkante xeex lijjanti pour ci biir njàng ak jàngale. li ci topp it da nga xam ni gis nañ ko mooy ci biir jëmmal bi ñëpp gis nañ ni amoon na ay jafe-jafe ci ñàkk déggoo ci li ñu xaatim diggante jàngalekat yi ak gouvernement bi mais xam nga ñun su amee jafe-jafe rek li ñu si yitteel mooy lan lañ ci jàngat ba nga xam ni. jafé-jafé bi far daf ñuy amal njariñ gis nañ nak am na njariñ lu mu tuuti tuuti tax na ba ñu xoolaat nan lañu ñu war a defalante diggante euh, syndicat yi ak gouvernement yi donc gën nañoo xamante xam nañ ni lépp lu ñuy def dañ ko war a teg ci dëgg société civile yëpp tamit mooy ñun ko si dabak yeneen moom membre société civile yëpp ku nekk jéem ngaa jouer rôle li nga xam ne tiir nañ ko ci comme ay leçon nag bëri na bu njëkk mooy euh, jàpp nañ ni tey suñu système éducatif bu ñu demee ba nga xam ni ñi ko sëkk ay nit tënk nañ dara dana dana baax ñu am benn jumtuwaay boo xam ne mooy tax ba du suivre jafe-jafe yi ba nga xam ni li ñu daloon dootuñu dalaat. jafandu ci euh, comité technique wu ministère des finances jafandu it ci comité technique des syndicats pour que euh, lépp loo xam ni mën na am comme jafe-jafe ñu mën ko gàttandu mais it pour que euh, lépp loo xam ni àndul ak li ñu bind ci li ñu xaatim ci protocole bi bu ñu leen ko jébal bu ñu ko jébalee comité de suivi ñu mën koo jubbanti. jàpp nañ nit ni dana am solo pour ñun que ginnaaw commité de suivi bi euh, bu taxee ba système bi am dal ñu mën a nag jàkkaarlook ay poñ yoo xam ne pour ñun euh, war nañoo yitteel war nañoo gën a yitteel ndax boo seetloon ni bëri na ay xale lu weesu million gu xale yoo xam ni nekkuñu ci benn daara nekkuñu ci benn lekkool boo seetloo ni jàngalekat yi ñu am tuuti na war nañ ko tal saafara nga seetloo de suñu lekkool ni mu bindoo euh, Eh, day tax ba lu ñew da koy daan bi covid ñewé pour mu daan ñu dafa yomb ñu tej ko dafa yomb parce que école yi amu ci amu ñu ndox way teju way bi sécurité bi dess na question langue nationale yi nga xam war na dugg aussi si biir système éducatif bi eh, li ñi jàngal xalé yi curriculum yi li ñuy jàngal kat yi référentiel yi donc yëpp nekk na ay poñ yo xam ni jàpp système éducatif war na am jotu eh, waxtaan ci parce que gëm nañ ni am na ay gëstu yo xam ni yu leer yo xam ni tegu na fi wante tant que ñoo ngi am euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu seetlu évidemment que du ñu am jotu euh, di jonti ko nit ñi